مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على gannaaw ba mu fësalee nag ay ndogal yu bees Medina bay moom dogu na ngir rek aaya yenn doxalin yi file ci dëkk bu sell bi ngir nag ñay bàyyee ko bitim réew ak file ci réew mi nag tey dem foofule mën a sukkandiku nag ci ndogal yu yees yi ni mel ab kuréel nag taxaw ngir fexe ba ñile di taalibe yi mën a sàmmonteeg yar ak teggin ba ñuy xaar ci ñoom kuréel boobu nag ñu ngi ko duppee Shababul Fayda. ku ne xam na ni bàyyi foowul fooluwul képp ku jóge sa kër di ñëw fii nii xam nga ni demoo marché xam nga ni demoo ndaga xam nga ni demoo feneen. jël sa ay bu gudd teg ah, monté sa ay xef jël sa semi sa y zip bu xawma am fante donc pays gannaaw nag ñun ñoo nga xam ne ñun la yàlla dénk kaaraange pays bi moo tax sëriñ bi def déclaration boobu noonu ñun tamit ñu ànd ci ak moom di wéyee ndigal parce que ñun ay taalibe lañu ay soldaar lañu di wéyee ndigal donc moo tax boobu léegi gis ngeen gis ngeen dispositif bi ñu mettre fii ci biir jumaa ji donc loolu noonu kilo loolu rek loolu moo fi tax a nekk di jumaa ji yëpp ay Cheval Fadia rek ñoo fi nekk ñu ngi ci comme ni ko sëriñ bi waxee woon amul mèche amul amul yére bu baaxul amul waaw ak muy góor muy jigéen nag sell sellal rekk yaru discipline loolu rek moo fi nekk. ñooñu leen nag ñu duppe ay soldaawu Shababul Fayda nag fu nekk nga leen di fekk file ci médina Baye bokk na ci nag gox yi nga xam ne nag fala la taalibe yi gën a bëree li ci mel ni jumaa ji ak li ko wër waaye nag du ñoom rekk de ñooy bàyyi bët ci loolu ab kuréel bu ñu duppee nag association jeunesse Faydu moom it dugal loxoom bu baax ci xeex boobu boobule ngir rek taalibe yi doxal yoon ci dëkk bi. Mérina ñëpp sëriñ lañ Baay Ñas dafa def ñëpp sëriñ lañ dafa waxoon ne taalibe bu gën a ndaw raw na mboolem wëllu yàlla yi sama góor ñu góor lañ sama jigéen ñu góor lañ mais ñun buñ jàpp loolu ñun nañ am respect am cër léegi Mérina changé na léegi dafa changé bokkut ak Mérina bu njëkk ba ku sol kilo doo fi dugg dafa laa du fi dugg. ku muuruwul doo fi dugg lu rafet rek lañ fi lañ fi lañ fi soxla à partir de ren liñ daan négocier dafa bëri mais loolu jeex na léegi ku fi deful loo fi war ta def danañ la dóor ba ngay bugg a dee boo muuruwul danañ la wat bu dee góor nga danañ la wat buñ la jàppee danañ la teg ci yoon. ñu di ay téeméer jëm ba junni sax ci ay lim kuréel bii di AGF moom jàpp ne xeex bi amul kenn ku ñu ci baa ñun ñëpp baa ñes moom mooy suñu sëriñ moo ñu bokkee njaboote ñun ñëpp mooy suñ baay mooy suñ lépp amul doomi deret amul doomi ruu amul doomi dara. fépp la ba génn saam fépp amatul tux cigarette amatul sol lu bon def nii rek amatul amul jumaa ji amul mépp na lépp la chaque jour ñu ngi fi guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ngi fi duñ sonn duñ tay ñun ñoo ngi fi ku fi deful loo fi war te def danañ danañ rax sa ndégg bu soobee yàlla. kuréel bii di Shababul Fayda nag di yëngu nag. ci ndigalu ki nga xam ne moo di Cheikh Aboubacar Ibrahima ñas ñu gën ko xame rek ci turu Baye Mbaye MC waaye nag li soxal seenub tàggat ki la ñu duppe caporal Diallo moom di dalal xel yi. ñun bu ñu neexoon Joal Fadiouth tey ku ne di fayee ko ay milliards waaye soxlawuñ ko ci. lépp loo lépp loo fi def Sawal Fayda ci sa poos la parce que ñëw pour liggéeyal Cheikh Ibrahim Niass ñàkk ñuqi loolu mooy a ñuqi loolu mooy suñu devise képp ku si ñëw tamit na nga def loolu sa bopp boo xam ne ñun kat ay taalibe Cheikh Ibrahim lañ d'abord balaa dara balaa doon ay soldat ay taalibe Cheikh Ibrahim lañ boo gisee ñu def suñu formation bi nag nit ki mënoo ko def sécurité wala di ko solal teni te xamul lan mooy teni xamul lan mooy sécurité donc moo tax il faut ñu defal la benn formation ay borom bopp kese ñoo fi nekk ay borom yi ay kàngam rek ñoo nekk boo duggoon ba ci biir Chawal Fayda ba ñu présenté ay maîtres ñoo fi nekk ay ay ay professeurs yu mag ay international ñoo fi nekk biir nag ay taalibe Cheikh Ibrahim di liggéeyal Baye Niass kese ay yeneen yeneen yeneen tarixa sax day ñëw sax gis affaire bi mu neex la ñëw andi xam-xam donc lépp rek ci Baye Niass moo toll noonu Baye Niass amul tànk ginnaaw Shababul Fayda nag mu ngi juddu ci ndorteelu atu 2000 yi mu di nag ab kuréel boo xam ne nag jamono ji